Abdoulaye Diop jërëjëf ñoom Ibrahima ak ñoom Aliou Ba yëpp itam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen wax ni seen journal des faits divers xalaas ñëwaat na tey mercredi ñaata sax mercredi xaw ma ñaata waaye daal weeru koor ma leer la moom Ndiaye maa ngi lay ziar. lay delloo mercredi la kañ la tey. est-ce que du 6. ah loolu la kon kon loolu la ayca. Ah, ah xanaa mercredi le 6 la. est-ce que du ah, hmm, ah. ñaata fan ci koor gi. ça dépend si <laughs> ñi njëkkoon a war a ñi mujjee woon rek. démb de le vingt septième jour laa waxoon démb lañ amoon ci koor ñu bari attaqué ma ne ma abaa yaa ngi tax ñuy juum. <laughs> waaw waaw day kii nag mais maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay maa ngi nuyu waa Sénégal di am mbégte di ànd ak ñoom di nuyu Mamadou Ndoye Ba. sànq séedal naa ko lu rafet. Ah, ah. fan la noonu sama xel. ah. ñun dara wóor ñu. aba ah, ah, ah, aba kii bi ngi dee rek. ma ne ko ñun moom loolu dara wóor ñu. su ma ñëwul mu nam. écoute sur su ma ñëwee muy muy muy muy man dégguma sama bopp. <laughs> ah waaye yow li mu noonu yow ba. waaw waaw non gaa ñëw. waaye kii ko ci waaye ñëw na. waaw ñëwul de. ah may ma ñeex tuuti. nga ñëw. ñëwul ndax est-ce que Abdoulaye Diop ko coupé. non maa ngi dégg sama bopp. sama retour retour bi yow jox ñu <laughs> waaw mu ngi ñëw na ngeen def waay. ñu ngi sant bu baax. waaw waaw mi ngi ñëw. waaw waaw waaw ñu ngi lay siyaar bu bari ñëw. ah fi ñu toll nii kon baax na kon yëpp ak baas bi. fi ñu toll nii moom baax na moom toll nii moom baax da ngeen ne ci ay problème de. por ñan ci la toll nii nit ñi ñu ngi leen di la ay wax yu fort ay police caaro yi beeg. loolu soo ko déggee rek liggéey baa ngi dox. ah moom su coow li baree rek. liggéey baa ngi dox. kon de police du su coow li baree rek mi ngi dox. ah xanaa xamoon Sénégal su koy dégg ñu koy ŋàññi rek liggéey ma ngi liggéey bu baax. ok yooyu bu amee moom ba bu nit ñi ñëwee di ma ci wax lu leer tànk mbaan waxuma ci Sénégal la muy critiqué loolu lay seetaan su dee télé su dee su naan lii baaxul waaw day yàq diine ji nangam ñoom ñëpp moom la ñuy am na ku naan lii li la xaw ma man xaw ma xaw ma. damay dégg-dégg. dégg naa ay photo ak vidéo yu bon lay def. Mhm. te moo gën a dox lu tax mu dox. da doon dox rek waaye léegi ñu doxatul. doxatul waaw Sénégalais yi dañuy jur benn affaire rek koor gee tax rek. génne waatee vidéo bu bees mu dox. <laughs> léegi soo génnee vidéo boo xam da nga ciy jàng alxuraan clic lu bari waaye soo géex benn xale bu jigéen tudd lii su defee lu mel noonu mu dox léegi nag ñan ñoo koy seetaan. ñi koy critiquer ñoo koy seetaan benn équation. dañu ne couvre waa mu fekk kenn ci. mbedd mi waa gis nga nit ci mbedd mi. waa dàq nga ko ba mu dugg ci kër gi. waaw du loolu nga bëgg waaw mu dugg. waaw dugg na. waaw doo fa yem. waaw lu dox mu fa yem. ah déet ça dépend couvre-feu état d'urgence couvre mayna alkat yi ñu dugg ci kër mayna na leen ko dé day infraction am day day yokk seen pouvoir couvre état d'urgence da dafay yok pouvoir force de l'ordre yi may na yi ñu dugg ci biir kër fekk ni bien sûr radio lay wax fekk le sa bir kër ça dépend li ngay li ngay def rek waaw non lol beneen domaine la nit mom amna na ba fa yeggé waxuma la couvre waxuma la état d'urgence mais fu mu la mën di fekk mayna alkat yi mu dugg sa mais dama né wa dañu né 20h bu mu fekk nit ci mbedd wa am na koo xam ne vingt heures fekk na ko ci mbedd mi. waaw yow li ngay bañ mooy mu nekk ci mbedd mi. waaw nga ko daw na dugg ca kër. waaw mais loo koy fekki ci kër. wala yow rek tey ji mi ngi mel ni tey ji ñu jox ma journal. bind nañ ko gis nañ ko. ma revue de presse ko nga ne ginnaaw bind nañ ko journal bi lu tax nga koy revue de presse. Hmm. je fais mon boulot fu mu fam fa muy yem man maay xool fu ma koy yemale. déedéet déglu ma déedéet man maay xool sama liggéey fu ma koy yemale. bul jaawale bul Sénégal. Sénégal dañoo bëgg a lekk nen te duñu toj du net lek omelette te duñu toj yi nen c'est ça il faut laisser la police et la gendarmerie tranquillement ñu liggéey seen liggéey suñ fi nek loon ñom tay ji do leen tala xey yi liggéey yi bàyyi leen jambour yi légui loo ci sanction bi légui policier barki dem lañ fi jam ben policier fi géejawaay déggu leen kenn wax ko jam nañ jam waaw yow noko ko ah mais numu ko yëgee. parce que buñ ñu ko waxuloon do ko yëg. déedéet avant ngeen koy wax yëg ko. Ah, avant journaux yi jot man yëg naa ko. mais comme journaux yi jot ci rek wax nañ ko. suñu gañé policier kenn du ko naqarlu kenn du ko naqaru kenn gën du ko dañ dañ ko yéex nëbb mais su sa il suffit que benn policier def benn affaire bu ndaw ñu ngi liy topp di leen ŋawte ŋawte mel ni policier yi duñu ay sénégalais. gendarme non non sanction bi nag. ban sanction. sanction adjoint commissaire bi ñu sanctionné. kenn sanctionné wu ko. commissaire yi nga xam ne ñoom la ñu affecté fan yi loolu note de service loolu waroon na génn bu yàgg. commissaire boobu sax dañ ko dafa am promotion. nga nekkoon ci ci benn commissariat adjoint ñu jëlee la fa. yóbbu la Pikine Ndar commissaire plein kooku promotion la yow ab stagiaire nga woon ñu jëlee la stagiaire jox la ab commissaire bu lëmm loolu lool sanction la. Hmm. nañ doxal nañ doxal. kooku dafa am promotion ñu ngi koy félicité commissaire Thior la. man daal lu mu déglu ci wàllu homme de tenue ay militaire rek. ay gars yi li ñuy bind nag lañu war a lañu war gars yi gis naa ci internet bi ah, naan dañ ko sanctionné peut-être non non non non non balu ñuy bind nañuy vérifier ba mu leer sanctionné. ah sanction do bobu da neex na te kep kuy tak der bëgg nga nekkon ab stagiaire adjoint commissariat ni jëlee la ci adjoint commissariat yobul la commissaire plein ci ak commissariat bu mag ci ndar commissaire u Pikine ah loolu kuy kuy commissaire bëgg nga loolu ah eh, ci kon nan doxal kon nan doxal man ma bëgg rek. wala moom dañoo xamewul dañoo xamewul promotion ak sanction. ba bëgg rek muy leer sama. bëgg leer na defena ak leeral la nga bëgg. leer na leer na de leer na de leer na de. Sénégalais né bolé ko bitim réew ñay ñaanal leen way ñu ñëw. ñaanal leen. ñan si. <laughs> Sénégalais yi bloqué wu Amérique. Mhm. bloqué wu France bloqué wu Maroc. Maroc billaay. billaay dañ faa bari trop te sonn. yal na yàlla sàmm am ay maire ak i baax. waaw fi kaas bu gàtt. yal na yàlla sàmm leen nañu dem ci xalaas. mburu mi dem moom leen tàggoo. wax leen seen soxna yi ñu jàng defar mburu. defar mburu defar mburu ci kër yi de boulangerie yi defati. saa yi. dégg nga wax la benn affaire ci mburu yi dégg naa liir naa démb ci benn site internet. mburu jeeg baax na de. mburu ban la gis nga gis nga gis nga kilo mburu bi boulanger yi bëggoon a yokk soixante euh, cent soixante quinze. Mhm. état bi bañ ko. Mhm. maanaam dañ koo bañal euh, état bi da leen koo bañal ci loxo droite ñoom ñu dem jëli ko ci loxo mhm. gauche. bu njëkk ba boulanger yi bu ñu jaay defaree mburu ba pare. dañ koy jox ki ko yóbbu ci boutique yi cent dix lañ ko koy joxe. moom su demee jox ko borom boutique bi cent borom boutique bi jaayee ko cent cinquante Hmm. léegi circuit boobu yëpp amatul quarante vingt franc yi livreur bi daan am ak vingt franc yi borom boutique daan am lépp ci boulanger bi la féete léegi ñu ngi koy jaayee maanaam am nañ ci yokk nañ ci quarante franc te kenn yëgu ko <laughs> lii borom mburu bi ñaar fukk lay jar te kilo mburu bi di jar soixante quinze loolu fu mu tege njaay dafa bari njuuj njaaj ju ci am gis nga jamono coronavirus bii a jeex parce que bari na ci mburu mi moom bul sonn moom kay maanaam dañuy ndogoo rek te noppi ba ci njuuj njaaj ja ca nekk wala ñu wax ko ñu leeral ko. mais mburu mi moom ba guddi yu ñu toll. dara gënu ko lëkk dañ ni dañoo nekk guerre. guerre lañ nekk ak ak ak feebar. mais léegi bu doon guerre dëggantaan la ay arme di nga xam ba xam da ngeen tam jëli mburu wala duñ jëli mburu. dama ne bu doon guerre arme ku nekk dama ne ku amul mburu nga def fondé. naan say fonde ñëpp ñoo lekk fondé. mburu du farata. ku la wax fu mu nekkee farata lekk mburu farata. ban ñi dem nga duñ mës a juboo. am na ñoo xam ñu ci ab dëkk di di di ndogu te duñ lekk castor am problème yow lo bëggee mburu di na jéeg ji defar mburu ci biir kër yi su fekkee mënuñu ko ñu ñibi seen kër papa yi fi nekk ni fi ngeen nekk nii ci yéen ñaar ñi maa ngi xool ka laaj war a àndal mais ba tey gisaguma ko man non man man xoolal mburoog laax ak fonde caag luñ ci lekk baax mais dama ne nañu bàyyi njuuj njaaj yi nëpp nëppal waaw waaw njaay numéro vert ba sax ci ministère de la santé jigéen ñi fa ne hmm. di di di wuy téléphone yi hmm. njaay jigéen ñi am nañ problème ben numéro vert mooy ay yi ñuy woote cellule d'alerte yeeg am na ñu fay woote di leen saaga pour la di leen xas di leen wax waxi bon waaye bii nag moom dafa ëpp njaay. benn waaye leen di woo di leen wax wax yu rëy yoo. ak fi feebar bi toll nii. waa ji day woote ci numéro vert bi. waaw mooy numéro bi nga xam nañ koo teg pour ku dara ja dal wala koo xamante ne ji gis nga ku dara dal wala. waaw. léegi am ñeneen yu cee woote ay jigéen ay jigéen lay jot. su jotee jigéen. Mhm. wax yu rëy la leen di wax. comme la déglul njaay. maa ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal yaa ngi ci numéro vert ministère de la santé sëñ bi fay wootee. 283 95 46 Dakar ngay wootee fan si Dakar. ma ni parcelle unité ban ngay wootee. ban unité ban unité parcelle unité ban. yow waxuma foo dëkk pare nga ne ma joxante rendez-vous. parcelle case ba police parcelle wala fan. Eh, apa gam oke d'accord baax na lu wax kan ya. lan sa woote dama bëggoon jalan rendez-vous bu ngoone rendez-vous fan ah foofu foofu si parcelle parcelle si fan parcelle boo diggee tali bi d'accord ban d' accord fa may jël sax nga fa may jël. man ànd waaw man kese la daaw maa def keneen. déedéet. yow man kese. ah am nga jëkkër. am naa jëkkër. waaw su suba bu ñu demee dégg suba. suba bu ñu demee fële. waaw. waaw boo ñëwee ma toog. ma ñëw lan. boo ñëwee waaw. loolu nga bëgg pour lan. mu weex. waaw d'accord ak lan nga bëgg. d'accord ak lan nga bëggaat defaat. allo. maa ngi lay dégg waa waxal. Ah, ama xool. waaw ah, d'accord dégg naa la ak ah, si maa bëggoon ñëw si kër ndaw si. ñëwal am problème am nga paas. paas waaw. man tur yi naka la. naa la ko wax. waaw dama sa tur yow man man xaw ma sa tur nga nga bëgg ma sa tur yow. waaw waaw ma pare ma. ah yow yaa njëkk wax pare yow ni nga muusee. waxuma sa tur man mami laa tudd. Cheikh Sakho lañ naaw Cheikh Sakho lañ naaw Cheikh Sakho. am sa yaay. sama yaay mu ngi dëkk. ñu ñaar ñu bokk dëkk parcelle la dëkk. parcelle sa dëkk moom tamit. waaw boo ñëwee nga sol sama sol ma loo leen. léegi su nga bëgg ma def su ma ñëwee. soo ñëwee. loolu moo tax man nga bëgg ma ñëw sa kër. waaw. mais est-ce que ñëw sama kër kon. mais woo naa daa am dëgg. ah ñëwal sama kër. ah ma ñëw. waaw. boo ñëwee dafa dafa ma cuuraay. waaw naa la cuuraay. cuuraay lu neex ah. waaw mais da ngay bàyyi woote fii de man sa numéro jël naa ko dootoo woote fii da ngay bàyyi woote fii. mais yow sa numéro yow carrément daal la. déedéet man man jël naa sa numéro yow man jël naa sa numéro mais yow bul bul wootee fii da ngay bàyyi woote fii man dinaa la woo bu si guddee ma woo la. bu guddee. bu guddee man naa la woo mais bàyyi woote fii. waaw ah ma woote mun ma koo bàyyi ndax yow da nga neex quoi. man fekk dégg ma sa ba doo am jàmm. lu tax doo am jàmm. parce que yaa may daaneel. nan laay daanelee. day seen day seen yu baax. ah d'accord léegi nag léegi nag loo bëgg. lu ma bëggoon. ah damaa bëggoon dafa soxna rek. damaa bëggoon dafa soxna soxna. ok d'accord waaye bàyyi woote fii ba ma woo la téléphone ah am na doon sama yaay doom ah. ma bul wootee Tito ba ma woo la téléphone. ndax doom sama yaay doom. waaw dégg naa la mais bul wootee Tito ba ma woo man téléphone. ma ne la woo guddi su wàccee dinaa la woo. dama woo. waaw. jaaxal ma. jaaxal ma bàyyi wootee ci guddi dinaa la woo. bàyyi xale jigéen ñi ngay wax li ngay wax li nga leen di wax bu leen wax dara man man dinaa la woo ñu waxtaan naak yow bàyyi li ngay wax bunti xale jigéen yi mais da da da nga war ma mën a bàyyi war na da ma wax damaa woo wax yooyu nga bëgg ko buddi naa ko wax sama xol quoi lu nga loolu la ma dama lay wooye maa ngi woowee nan am bëgg am bëgg ma wooye sama yëf waxal ma dégg waxal ma dégg déedéet bàyyi bu guddi damaa woo instant bi ku woo du wax yooyu yow xam nañ xam nañ jeexu dara ko. dama woo dama woo ma wooree mën na boon naa la ko wax. mais tur sa tur na rafet na tur de. mais waaw yow moom sa doot ma daf may neex dama yëf ma wooree. waaw dégg naa la dinaa la ko guddi mën na koo dégg nga. waaw mais mais waaw. waaw bu bu suba ba ci kanam maa ngi coupé ba ci kanam dégg nga. alors. ma ne maa ngi coupé laa wax. alors waaw wu ma wax la wu ma wax benn affaire alors. waaw waxal waxal. yaa ngi ci jàmm nekkal ci jàmm yow. waaw kay bu wootee waat ku teel bu kenn kon dama lay mere boo ko woowee kenn dinaa la mere kon doon ma la woo guddi. ah loolu gerte yow yow yow boo ma déggee man damay damay kii quoi sama xol. waaw sama la ci la ci. waaw coupé. waaw coupé. yow yaa ngi tànnal yow yaa ngi tànnal. non copain Ndiaye bi neex na quoi. copain Ndiaye jàmm ñu ngi dund de lu soo gisee nag ñu wax lii lépp pourtant. Ah, bi ñu bi fexe leen koo moo waral wax ju gudd hmm. mais ñoom dañ daan woo su waa ji commencé wax wax yi ñaaw ñu coupé ko. coupé ko effectivement. non dañ ko mooy professionnalisme mais comme. dañu bëggoon a am preuve. waaw kan baax na wax ju gudd. am lii da ciy baax nag gis nga. Mm-hmm. Euh, kenn ku nekk fa mu nekk di fa liggéey surtout jamonoy corona bi. Mm-hmm. yaa nga fay daj coono bu métti. bu métti. Mm-hmm. tey ñii bu ñu la waxee nombre yi ñuy liggéey nit ñi di leen woo di ñu nekk ci jaxasoo war di la dalal. Mhm. ba pare ñuy dégg waxi dof yi. Mhm. ça veut que. mais léegi engagement am na dara parce que ñoom nee nañ da ngay gis koo xam day jël téléphone yaayam wala téléphone papaam wala mu doon bu jigéen bu yor téléphone wala go woo leen di leen saaga. saaga nii wax après ñoom suñu jëlee kenn su jëlee numéro bi rappelé ci numéro bi ak portable soxna si na nga def. ku borom téléphone man ah sa doom de woote nañu fi wax nañu lii ak lii ñun ñooy lii. ah ñoo ngi jéggulu de foog nga xalé rek nangam ak nangam gis nga Sénégal té suñu ko topé tracé ko japp ko ciow ciow juk amé ah, mais sax di tracé fi né ban buñu jàr la tracé de dé buñu bëggé luñu tracé ak luñu japp nañu Covid 19 bi. waaw nañ ko top mais yi ko la nañ ko seet ba jàpp ñii ñoo gëna graw yi amul jëriñ de. lii amul jarul top de. il faut rester professionnel nit wo na la yow xam nga ne li cellule d'alerte la dama corona wala corona ma nga fay xaar Mhm. woo wax la lu jëm ci loolu coupé ko jàll ci leneen. waaw dañ koy coupé waaw jeex na ñoom loo bëgg fee topp jël takk der ñu ne di topp ak kii jaru loolu dëgg la yow bi nga ma sant ñu enregistré ko pour pour nit ñi xam li ñuy dund mhm. waaw mhm. mais bu doon loolu femme bi amuloon pour toog pendant quatre et cinq minutes di wax ak moom woo c'est-à-dire gis nga langue langue nit bu ca dof jooxee yàgg fa rek nit ña la neex woo na la wax na la lu loo xam ne taxulaa jóg. Mhm. fi ko te jàll ci la. ñi woo sapeur di leen wax nag làkk fii am na fi te amu fa. ah d' accord noonu ñi yam rek. Ah, d' accord <laughs> non ñoom moom c' est trop grave parce que déplacé soo nekk sapeur pompier. non numéro bi moom gannaaw numéro bi am nañ ko dañ ko jox ñi ko war a jox ñu topp. Ah. léegi ñu war a faj faj. léegi. war a revue de presse revue de presse. aywa ban ban ban. nan dem ban kii nee na. lu <laughs> sonal euh, naa ko. <laughs> man ndeysaan ban tey dafa ñëw pour ruube. ban ban tey dafa ñëw pour ruube. sama jëkkër dafa soppeeku. waaw mel loolu wax Njaay kii nee na fu ne jaar na fa ak jëkkër ji dañ ko koo mayoon sax mu bañ mbokk la sëy mbokk la waaye daal moom da daal liggéey sax di jox jëkkër ji ko toppatoo mais jëkkër ji dafa soppeeku soppeeku gu doy waar ba takk ba takk beneen jabar te sëru sëru jëkkër ji moo dox mbir mi lijjanti ko ba jëkkër ji takk ñaareel boo xam ne ba ñaareel bi sëy si indaale na ñeenti doom hmm? yoo xam ne ci beneen compétition la ko amee woon indi ko ci beneen calcio. maanaam jële ko Barça indi ko championnat Italie. Mhm. déglu. waaw man dama doon jàng macha allah may am ñaar fukki at sëy naa sama boobu bëgguma ko sama yaay moom ci forcé ne ma mbokk la naa ci dugg suñu benn doomu nday ñëw di ma bëgg si soxna ma bañ sama yaay forcé ma ci dama man comme dama bëgg sama yaay bëgg samay waajur te bëgg ma du leen naqari ma fekk sama yaay ci lim bëgg ma ne xëy na dafa ci ma fekk si ko ci mu ñëw takk ma ci farata si yàlla sunu Muhammad lu ma xam moom ko xamal moom waa jooju may sëy moom yàlla rek tax sama papa mosul woon a bëgg sëy bi sama yaay moo ko liggéey ba mu ànd ci bi ci àndee ba na mayee ba pare sama papa bañ ne moom xaw ma lu ko def loolu lii ba mu nangu sëy bi moom neexu ko waa ji ñëwoon na ngor ji ñëwoon par islam mu metti trop ci ko metti trop ci moom dara fekk ay doomu ndayam di ko xeex ma ñëw di ko xeex leen di ko xeex leen sama ndigg di liggéey di def ci sama bob, di liggéey di def ci sama bob, di liggéey di def ci moom ba yàlla dogal ñu am ay doom ñu am ay bant kër ga lu ne ma daj ko fa ba ma xam nan ma fa dóor nan ma fa jiin nan ma fa ñax lu ne jiin ma ko fa ci kër ga moom dëgg sax jiin ma ko fa tamaa ñoom ñu bokk benn maam ba moom moom mu xam ne ñoom ñii dan maa bañ daf ma daan wax naan ma gis naa lépp xam lépp waaye mu ngi leen gis sama jëmm lu ne jinnan ma ko dama gën leen man xamul ma dara lu bon man may waxal wala lu ñaaw te ñoom mën naa taxaw tàpp di leen waxal loo xamante ni wéy ci tege mais man yarewuñ ma wax lu ñaaw ma ne sama jëkkër man de yow rek yaa ma ñor tànk yaa ngi wan ma ngor du ma la a ñu xeex ma ba génne ma kër ga ma toog ak sama ndig di liggéey ci liggéey ba jënd sama materi. des fois ma tase nit sax ci mbedd mu ne waaye yow kii du diw yow ni ya, nga meloon ni nga jongub maa woon yaa dim ba mel nii ndax sama rek lay di liggéey jàppale sama jëkk nekk ci banque yi di jël ay financement di ko jox mu dem ba tekki dem ba commencé am situation sax laay wax ba situation tàmbalee neex ndax am naa doom képp ku ma sol sax du ma ko jox ndax amu ko man may cotisé pour mu mën a génn lu ci bari ci xew maa koy def boole koog sama yaay dikkee bi leen ban kontaan ba nga xamante dem na ba muy neex ay mbokkam ay góor laa la wax ne ay mbokkam yoo xam ne ay mbokkam ay góor lan daal di koy xeex di ma xeex di ma xeex force ko dugal ko ci jabar te njëkk nañ koo bëgg a dugal si jabar mu ne leen déedéet du ma ci dugg parce que man bisu lu may daw bay daan lépp may sosee ci liggéey nit sama soxna dina ma toppatoo lu war ci man ko ko ca teg ci leen dem jël rakkam ko takku indi ko ci kër ko mu dem sëy ba tas am ñeenti tamit ñu dem jël ko takkal ko sama di dama woote def lu ne mu yàq ma ko lu bon ko yàq moom ndaw si sama jëkkër ànd ci moom di ko woo téléphone naan ko ko bëgg a teg loolu kii def maa lijjal ndaw si di ma woo di ma ko wax naan sa jëkkër neen dalaa bëgg a wàcc sa nee na nëbbatu la nee na yaa fi ba sa bopp nee na moom nëbb la def ci moom lii de li ma ci gën a métti. Mhm. ne bokk ci li ci des dañuy xaar bu suba. ah la. dina xaar bu suba. waaw il ñu xaar bu suba. Ndiaye. Hmm? léegi wax na fi mu jaar jëkkër ji mais waxagul lu tax mu ne jëkkër ji daa soppeeku. loolu la nag loolu tax soppeeku mënul weesu. nga takk ñaareel ah, du ko waxagul. waaw la koy wax. waaw mais fi mu toll nii. fi nga xam ne foo la daanale. nit ñi nañ xam ne. jëkkër ji dafa takk ñaareel. ñaareel ba indaale ñeenti doom. aaw ñu fase ko yóbbaale ñeenti doom maanaam tamit waa ji ci boppam mhm. toppatoowul aawo ba ak ñeenti doom ya dem mhm. man nga toppatoo ñaari eh, ñaareel bi mhm. ak ñeenti doom yi mu indi ci waa ji juru ko lii bu doon ci ma match lañ nekk waaw te ñaan kat kat la égalisation la léegi fi ñu toon ni pour match bi leer prolongation bi leer waaw bu subaa rek lay mën a nekk waaw loolu lay mën nekk nañ dem allo présidence waaw